waaw man question bi may bi may njëkk teg stable ji rek mooy intérêt sénégalais yi fan la nekk dans ce mm. débat. Mm. parce que bu fekkee ne dañuy regroupé wu di waxtaan wala di xool ay schéma yoo xamante ni ay intérêt chef de parti la ay intérêt parti wala sax yenn saa sax du intérêt parti yi intérêt chef de parti yi la mm. loolu tam c'est débat ndax li dirigeant parti yi di def yépp dañ ci am onction onction parti yi pour man beneen débat la boo xamante ni aussi ça devrait intéresser les Sénégalais <coughs> beneen bi nga xamante ni moom laa ci bëgg a wax mooy président Macky Sall 2008 la commencé préparer la présidentielle de 2012 2008 bi mu génnee rek ci la commencé mhm. préparer la présidentielle de donc il a eu 4 ans donc quand tu as eu 4 ans pour préparer une présidentielle et que tu dis aux autres xaar leen ba à une année suñu réew yi élection dafa compliqué léegi leneen li mu wax li mu am solo mooy mu ne bu nee candidat la rek gars yi dootuñu liggéey mais que Sénégalais yi bëgg def politique te yéen am yéenay jël poste boobu nañu génn léegi ñu dem wuti. defi politique. defi politique Sénégalais yi nga xamante ni ñoom. fauteuil bi intéressé wu leen. liggéeyal Sénégal moo leen ñor. Hmm. ñu tabb leen ci poste yooyu nga xamante ni dañuy liggéey parce que encore une fois ambition bi mu am mu tudde ko liggéeyal ëllëg loolu kuy xalaat fauteuil bi wala nekk ci ay schéma politique doo ko tal. débat te am na ku ñu fi wax léegi ne. président Macky Sall recevoir ko ñuy mer ak yooyu mais man tey jii dama doon sant yàlla trop ñoom Issa Bass ñi dem ñu recevoir leen c'est-à-dire am na Sénégalais yoo xam président daf leen war a dalal mm-hmm. parce que ñoom fi mu ne nii daanaka plateau yi la ñu am Oui. pour wax ñu dégg leen. Mm-hmm. pour être audible il faut que ñu jël rajo yi takk rajo yi nekk ci rajo yi nekk ci télé yi les journalistes sont presque fatigués parce que tout le temps ils deviennent même des des des murs de lamentation kuy génn télé rek di wax. képp kuy génn télé di wax professionnel des médias laa bëgg a wax nit ñi ñoo ngi lay woo jamono bu nekk naan la bëgg naa wax lii bëgg naa bi may dugg si fii léegi am na benn soxna bu ma interpellé ah, naan ma ci sa kanam naan la sama doom ja nekk Maroc situation ba mu nekk man mi yenn saa yi man la ñuy woo ci dans un pays boo xamante ne nekkul Sénégal naan la nit dañu am ku dee fii dañu bëgg ñu rapatrier ko Sénégal qui a des problèmes donc les gens qui sont les secteurs névralgiques et qui ont des problèmes ont du mal à le ministre wala seen problème du réglé wu wala avoir le président mais donc ñi nga xam dañu nekk ci schéma yooyu bëgg a politique mais nañu génn dem conquérir le pouvoir dugg ci àll bi dem wuti wuti daal di xam ne am na ñeenti at yoo xamante ni ñoo ngi ci seen kanam mhm. parce que élection présidentielle c'est lu sérieux la doo bàyyi ba ñaari léegi nag bu fekkee ne le président Macky Sall aussi dafa xalaat comme schéma Poutine ak Dimitri Medvedev <laughs> là aussi il faut que yi teel a xam kan mooy Medvedev. ñu identifier ko tout de suite. waaw seen opposant waay mooy. ñeneen ñi daal di ñeneen ñi daal di dem défi politique leneen li mooy. tu as une idée. seulement moi je. Eh, bul wax ni c'est bul wax ni c'est lui waaye da koy indil problème. non puisque mon analyse de la puisque mon mm. analyse de la dernière fois ci Yirim wax. naaxu ko trop. ah parce que j'ai vu le commentaire. non non non non non non xam nga non non non je vais essayer d'avoir une analyse beaucoup plus polie. parce que quand xam nga j'avais dit. xam nga dama ne woon. Cheikh Yérim dafa wax lii. parce que quand même lu mel ni Macky woo ay journaliste su ku mel ni Cheikh Yérim ak turam ak dayoom kenn woowu ko ci. Mm, donc pour susciter le débat. pour bokk ci débat bi il a fallu que ñu génne te diw mooy diw la moo nekk ci xelu Macky wala diw yi. il a réussi mais aujourd'hui c'est ce qu'il cherchait. ma ne ko il a war invitation bi tey donc en fait ça me donne quelque part rek <laughs> bokk na ci coow la retrace mais pour pour pour avoir une pour sama kii gën a am yar. peut-être mm-hmm. parce que xëy na noonu ngeen ko bëggee. non mais tu peux être impertinent. c'est ça. c'est ça l'intelligence. waaw macha allah léegi man li ma bëgg a wax mooy. Mm-hmm. bu boo demee ba joxe ay tur man bu ma vicieux trop je vais dire que xëy na da nga ñu bëgg a wax ni Macky puisque tànn na ay successeur am mooy Macky kon donc du laaj troisième mandat. Mm-hmm. Mm-hmm. oui c'est une lecture. laa la bëgg mais c'est presque ce que j'avais man li ma xalaat non damay répondre li ma xalaat ci loolu man lu leer la ci man. Hmm. problème mandat bi pour man. Hmm. constitution bi réglé na ko te Macky Sall wax na ko au moins trois quatre fois. Hmm. non non c'est important mon frère c'est très important. wax xam nga am Ablaye Wade problème bi mu amoon hmm. yëpp yëpp yëpp lan moo ko indoon. Hmm. maa waxoon waxeet. tu comprends. xam nga constitution bi c'est clair président commentaire na ko plusieurs fois. <coughs> bi mu ko mujjee commentaire mooy débat 31 décembre ba lay passé. boobu maa ngi fa mais xam nga nag Malal aussi boo ma nee bañ a nekk ci débat Malal xam nga ñaata chef d'état laa interviewé man sama at. <laughs> non parce que des aussi xam nga xam nga xam nga non dafa am yoo xam ni malheureusement boo ko waxee ci télé. nit ñi mën nañu ko jàppee neneen. Mm-hmm. donc xam nga xam nga xam nga dafa dafay ba bref nañ bañ a dugg ci débat. Ah, mais li am solo mooy pour man Macky Sall pudeur. Mm. ak bëgg a sauver mandaam mm. moo tax am na yoo xam ne mënu ko wax mm. mais li ma xam ci moom tuuti parce que attention mën nañu deni yëpp lépp Macky Sall ba mu des intelligence ak sens de l'analyse ak xam politique ak xam fi mu jëm ak xam li mën a nekk ak li mënul nekk waaw ne serait-ce pour ça parce que il e quand même ingénieur de formation te ñuy waxtaan ak Macky Sall yëpp assurer am na lu ñuy jàpp ci moom compte tenu yooyu yëpp bu ma ko compiler ak yi muy compte yoo tax ma gëm ni Macky Sall en 2024 day dem yoonam man loolu laa gëm jusqu'à la preuve du contraire maintenant mais maintenant politique politique moo demee noonu analyse xam nga journalisme dafa am ce qu'on appelle ci journalisme les chicaneries politiciennes mooy lan mooy nga toog xool politique xool ni muy doxe mm-hmm. nga gëstu ci xool ci wax ci xam nga man émission boobu lan moo tax ma def ko parce que dama gis Idrissa Seck mi ngi toog ay weer waxul dara. ma gis loolu. ma gis ni famille Wade ak ak ak ak Macky Sall maanaam ñoom ñaar gisee nañ ma ku ñaan ba ci yàgg rupture am Wade Abdoulaye bokkul ci dialogue bi maanaam y a beaucoup de faits. il se boo xam ne il faut faire le point pour les Sénégalais. xam donc débat yi ñëw ba. et mu doon contexte boo xam ne président def interview aussi. Mm. taxaw ni dauphin mu ngi nekk ci biir géej. ñu posé ma question boobu. mais ma wax ci dama ci xalaat. mais ay question de Bouba wuyu. voilà euh, xam nga tamit. tamit uh-huh. euh, njaacaar nga. aay nga kan aay nga. Ah. non Yérim mm. donc soo soo waxee. Mm. du nit yi du du ñu kii noonu rek dañu naan Yérim lu mu wund. Uh-huh. parce que aujourd'hui en disant ça am na ñoo xam ne def nga croire ci ñoom. Uh-huh. et ça peut mën na impacte ci seen avenir politique xam nga aujourd'hui hmm. aujourd'hui man mën nga ne mën nga ne seen journaliste moom moo def benn tra liggéeyam dans la dans la tête wala dans la hmm. peau de d'accord mais man gëm naa ni hmm. c'est beaucoup plus profond man sama perception xam nga lu tax xam nga lu tax quand Cheikh Yérim Seck sort Abdoulaye Daouda Diallo Cheikh Omar Anne Matar Cissé euh, Matar Cissé. Mansour fay Mansour Faye ñooñu la génne tey jii boo demoon di sénégalais ci biti nga ne leen kan mooy successeur potentiel bu Macky Sall ku nekk koo xam ne peut-être nekkul ci yow ci niveau d'information bi nga nekk du ci génn Amadou Ba du ci génn Mimi ture du ci génn keneen est-ce que stratégiquement loolu aussi. impacté wul ñooñu ci seen avenir politique est-ce que def na commentaire bu mel noonu rek mais aujourd'hui boo cité ñooñu est-ce que tu ne poses pas un problème fondamental ci biir ci biir succession Macky Sall voilà léegi réponse xaaral xaaral wax la xaaral wax la xaaral wax xam nga li la bëgg a wan a li war a li la a war a wan ni amul benn calcul hmm. émission boobu laa jël Aïssatou Diop Fall Aïssatou Diop moo ma woo ni ma parce que man mosuma j'ai jamais demandé à être invité nulle part émission boobu planifié wu ma ko maanaam xam nga bu doon planification mooy da ngay parce que bu fekkoon dama ko bëggoon wax ak sama bopp xam man soxla ma dem ci benn média pour wax kam parce que am naa ay média mhm. <laughs> dañu waxante dëgg rek quoi léegi bu fekkoon ne man damay planifier pour wax amoon naa possibilité yu bari wax Aïssatou moo ma woo pour invité ma oui mais ça n'aura pas le même retentissement ça n'aura malal baal ma explique non c'est important xam nga looy planifier boo amee loo bëgg a wax parce que dafa am objectif booy recherché da koy planifier xam nga yow euh, man yàlla def na bu ma bëggee wax peut-être am na ñoo xam ne suma ma leen woowee mën naa wax. mais wowuma kenn dañ maa woo pour ma wax. waaw waaw. tu comprends. <laughs> donc loolu ça veut dire beaucoup de bu <laughs> bëgg man sama liggéey awma ci planification honnêtement parce que euh, awma calcul au fait. je te le dis droit dans les yeux man awma calcul ci politique xam nga des fois ñu ni Cheikh Yérim Seck voilà Macky Sall la faral et cetera waa Sonko yi xëy suba dina saaga ci internet bi tout le temps. non mais deux jours après. parce que bu mais répondre sama question. waaw mais da nga ma poser question da nga may déglu. mais fi ngay jaar moo sori. non non non fi ngay jaar dafa am rapport logique ak li ma lay wax waxantuwuma. waaw ayca attends xam nga chaque jour dañuy toog ñu ni Cheikh Yérim Seck Macky Sall moo koy manipuler. day gàddu Sonko dina saaga lu nañu wax ko le lendemain matin nga waxaat ci Macky Sall les gars du pouvoir jóg affaire yu deme noonu loolu pourquoi parce que aw ma calcul man mosuma calculer ci journalisme li ma jàpp ni mooy dëgg moom laay wax par contre mën naa juum. Mm-hmm. parce que il faut avoir l'humilité de le reconnaître. parce que man dañ may informer des fois mu am yu xew yoo xam ne du ko fekkee. Mm-hmm. source mën na ma manipuler. Mhm. et je peux de bonne foi. mën naa juum de bonne foi mais xoolal. Mhm. mësuma wax loo xam ne nii sama aqulaay taala gëw ma ni lii dëgg la d'autant man je pas le droit de tout dire ñu bari mën nañu wax lu leen neex benn kilifa bu mag mos na ma ko wax benn njiitu réew mun na yow defal ndànk ci li ngay wax parce que même booy foo day am retentissement donc man buuba am na yoo xam ne sañu ma ko moo tax lu mu wax dama ko gëm. waxuma nag lu mu wax dëgg la mais lu mu wax am na fu ma ko teg. mais par contre aw ma calcul xam nga su ma amoon calcul nan laay def mais buuba ñii bind ay livre ci ay chef d'état di di gérer seen carrière mais li ñu def li ñu def ak la ma ko dàq <coughs> bu ma neexoon man. su ma neexoon Macky Sall dafa dafa non non mais mais non c'est important parce que c'est important question bi yow promotion bopp rek man ah mais yaa ma laaj s'il te plaît yaa ma laaj en 10 ans yaa ma laaj répondre sama question aw ma calcul non aw ma calcul répondre sama question calcul ma def sama calcul àll yéen àll yéen yàlla moom dëgg nag ni Cheikh Yérim amee liberté li mu xalaat li mu xalaat li mu xalaat. Cheikh Yérim bi ngay wax ci tout surtout phase. da ngaa meroon da ngaa meroon pouvoir bi. mais meru ma. ba ah, mu ah, da ngaa meroon di sànni xeer. Hmm. ci biir wax bi nga am ñoo bi am ñoo bëgg man su dee daan ak nekkuma ci biti maintenant entre temps ay correction am na ak ñooñu peut-être ay yeneen correction am na ko bëgg à droite changer d'avis. c'est ça la vérité. Eh, eh, eh. dangaa bari xarit. mooy sama rek waaw dëgg ko la. Cheikh Yérim dangaa bari xarit ci biir nguuru Macky Sall. léeg-léeg nga réeroog ñoom. may ma rek waaye bu bàyyi ko mu wax. bu léeg-léeg nga réeroog ñoom comme ñëpp. Hmm. man yàlla ma réeroog say nit léeg ma réer damay réeroog ay nit. loolu yëpp la. <laughs> yàlla nga réeroog ñu loolu nga jubóog ñoom c'est dans l'ordre normal des choses c'est très normal doo journaliste bu ndaw may wax rek même doo journaliste bu ndaw. en ah. Afrique grave. ci journaliste yi gën a mag ci Afrique nga bokk. jaay ma la c'est la vérité. alors cette kàddu day joué. Hmm. qu'on le veuille ou non mën naa fara yow. mën naa bañ a fara yow. mën naa la ko mais loolu mais sa wax. waaw ma bu wax. kon ñuy politique. munoo tere ñu bañ se sa sa sa sa rétroviseur ñu bàyyi la ci. waaw la bàyyi ngay kii nii rek de. en tout cas jamono ja nga doon wax. na nga na nga mere Cheikh Yérim ma doon wax. ak tey ba nga jàkkaarloo sa ay sa Diop Fall ak tey ak Cheikh Yérim mii am na différence. est-ce que mën naa wax.